internet leader 221 gannaaw bañ leen nuyoo ñoo ngi amaan mbégte ak contentement di ànd ak yéen ci suñu ay programme di leen dégtal li gën a fës ci actualité euh, people ñu dooree ko rek ak kile di euh, Fatel gannaaw bañ ko gisee ay fan ci ginnaaw mu doon amal li nga xamante ne moo di chirurgie ci noonu nag femme bi nga xamante ne moo ko ko doon defal mu génn rek indi ci ay révélation mu ne gannaaw ba mu ko defalee loolu di chirurgie moom nag Fatel fayu ko li nga xamante ne moo di xaalisam kile di ngaaka envoyé ko rek ay menaces moom nag mu ne ragalul benn yoon wante yaayu Fatel woo na ko di dalal xalam ne ko rek dinañ la fay sa xaalis ba mu mat sëkk moom nag mu ne carrément ay journaliste ñoo ngi koy woo fu ne ngir am ak moom rek li nga xamante ni moo di interview te buñ ko fayul xaalisam dina mujj joxe interview yi nga xamante ne journaliste yi moom lañ ko bëggal te ragalul benn yoon donc nañ ko fay xaalisam Adji Mass gannaaw nag bañ ko gisee mu sekk ak waxtaan kile di mag bi moom nag mu doon waxtaan ak moom wante itam mu yëkkati ci ay saago jëmale ko ci ki nga xamante ne moo di usmaan Sonko ak waa këram muy patriote yi mu ne nag moomuñu dëkk bi moom nag mu ne du daw du daay lépp loo xamante ne rek pare na pour jëflante ak ñoom da koy def ba mu mat sëkk wante itam di encourager kooku di mag bi naan ko bul teg sa tànk ndax yow defoo fi waxoo fi lu baax rek nga fi def wante itam yemul foofu yëkkati ay kàddu jëmale ko ci Adamo ba ñu xëyee nag la ñu gis Adamo jàpp ojo yooyu yëpp publier ko mu mel ni nag moo jur coow li Adji Mass nag xëy di baalu àq sénégalais yëpp wante itam ñooñu di patriote yi mu ne leen carrément yàgg naa leen xeexal donc lii bu demee ba am rek xam leen ni euh, dama sës loolu rek moo waral mu génn rek doon wax ci patriote yi moom nag Adji Mass nee na moo ngi jéggalu képp koo xamante ne rek patriote ga xamante kàddu yi nga xamante ni yëkkati na ko jëmale ko ci ñoom gannaaw ba ñu gisee kooku nag di Ketchup génn doon wax rek ci album national bi wante itam disque d'or bi Cheikh Mbacke nag génn doon tontu ki nga xamante ne rek moo di Ketchup mu ne ko rusloo nga ma taalibe Serigne Touba dafa war a am benn taxawaay wante du nii nga taxawee mu ne rek dangaa xamul wante mënoo fexe ba kile du waali nekkul star mu ne ko dellu rek ci làmb ji ndaxte yow làmb nga xam place su showbiz bi amoo ci benn place donc nag Cheikh kàddu rek la yëkkati jëmale ko ci kooku nag di Ketchup ne ko nag bu yeboo nga noppalu te nga xam ni taalibe Serigne Touba nga nga xoolaat sa bopp di wax rek ni jour bi ngay wax loolu boo demoon fan rek jour boobu foofu ngay fanaan doo génn ndax bi ngay wax nag dafa mel ni daa am loo jël. tëjee ko rek ak artist boobu di rappeur di Ngaaka Blindé gannaaw bañ koy xaar nag ngir mu tontu ki nga xamante ni moo di waa Akhlou Brick Ngaaka nag mu ñëw bett ñu baree bari gannaaw bañ ko doon xaar mu ñëw indi loo xamante ne nag kenn xaaru ko woon tontu waa Akhlou Brick defu ko benn yoon wante dafa ñëw andiwaat lu bees tàkk musique bi nga xamante ni andi na ko muy bu aare wante ci biir clip bi ñëpp di ko gis ci côté soloñ bi parole yi nga xamante ni itam yëkkati na ko mu mel ni ngaaka nag mu ngay fësal li nga xamante ni moo nekk ci moom chaque jour rek muy firndeel talent bi gën a nekk ci moom en tout cas ñoo ngi koy ñaanal rek bonne continuation